d'abord aujourd'hui, dañu fi venus di def li réunion nationale pour préparer gàmmu bi de Medina Baye édition 2019 de cette réunion bi préfet dajale na COMAF ak sus entreprises yi nga xam ne yi ak administration yi nga a gouverneur bi également rencontré ak donc yenn point yi nga xam ni peut-être woon na leen mooy point yi nga xam ne bi ñëwee fii wax nañu euh, te am nañ yaakaar ne ak suñu intervention ak sollicitation yi ñu def yenn euh, responsable administration yi ciy yëngatu am nañu ay solution yu trouvé donc en yaakaar nañ daal que ne euh, gàmmu bi ñu ñu dégmal bu neexee yàlla dinañ ci dem ak condition yu gën mooy suñu yéene li nga xam ne moom la ci demee woon daaw